jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf mbokk yi guy sombel ñu ngi leen di nuyu nuyu bi nga xam ne mooy nuyu lislaam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu képp koo xam ne mi ngi dégg rajo bi. ak ñi dëkk ci koñ bi di leen baaloo ak ci yëngatu bi ñu yëngal am na ñoo xam ne maanaam mën na leen a képp koo xam ne mbir mi sonal na la fi nga tëdd ndax mën naa am ku nekk ci këram boppam di metti wala mu feebar kooku it ñu ngi koy baalu ak te di ko ñaanal képp ku fi am soxla yàlla na ko yàlla faj ci barke Cheikh Ahmadou Bamba di nuyu nag monsieur le maire Sankhare ndax nit ku baax nii maanaam am na benn kilifa bu ma ko wax léegi ne ko man de su ma gëstoo gi sànq rek damay ñeme ndax man sëñ Bass Bamba xewal politique dama dab maanaam politique dama dab ndax depuis 2009 ba léegi 2009 laa jël juróom-ñeenti million lebal ko ay jigéen jël ñetti million lebal ko ay góor jigéen ñi nag fay nañu góor ñi fayuñu léegi yàlla mi dara tewul man ci social laay dund maanaam social mooy dimbale nit te yàlla tax man damay jàppale doomu aadama te yàlla tax léegi yàlla bi mu defee loolu ma gis réew mii nga xam ne ñii yor réew mi bëgg nañu yor réew mi mais munuñu mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ndax président boo xam ne talul dara histoire rek xeexal ak xuloo rek mooy problème am mooy Macky Sall Macky Sall moom talul soxla nit ñi lu dul xeex xuloo rek maanaam jàpp rek tëj Macky Sall mënu reetaan sax mënu ko te njiit yàlla ci boppam njiit njiit yàlla mooy dagg ci dooleem jox la bis bu nekk ñu tooñ yàlla tooñ gu métti après yàlla jéggal la njiit dafa war a jéggale ba pare di jëlale waaye xam nga soo gisee li tax Macky Sall àggul fa mu jëm maanaam juróom-ñaari at yi dafa gaaw ci moom ndax juróomi at lañ ko faloon man ba mu taxawee ne buñ ma falee juróom at la waaye juróomi at laa koy def juróomi at yi gaaw lool mu mu dugal beneen galgal ndax kilifa bu xesee ba wax da ko war a def bu la doon rey sax nañ ko def waaye juróom-ñaari at yi nga xam ne def na ko fi soo gisee deful dara dafay nekk di xeex ak xuloo jàpp nit ñi tëj te xamu ne loolu du solution boo yéeg ci kaw garab bu dee ku la sànni xeer nga wàcc for xeer fayuwaat doo àgg ci garab gi bokk loolu moo dal Macky Sall ma dama ko yërëm sax mais ñu ngi koy ñaan bu élection yi ñëwee na ko teg ci yoon te xam ne dafiy jóge wax naa leen ko keroog samp si naa ko waxaat fii kii internet la caméra la ñu ma ko dëpp ma li may ñeme naa ko lool man ma li may wax dama ko ñeme ragaluma ndax Idrissa Seck mii may jàppale ba dama bëgg ngeen déglu ma tuuti rek Idrissa Seck mii may jàppale mu le maire mi ngi nii toog dina jël kàddu léegi firndeel leen ko wax naa ko keroog soxlawu maa gis Idrissa Seck te benn mbindeef nag. yëkkatu xaalis teg ko sama loxo man li may ñàkk li may liggéey ci laay jël di ko bokk ak sama morom yi nga xam ne ñun ñëpp benn lañu man li may liggéey laay jël di ko bokk ak ñi ngay xam ne samay waajur lañu samay soxna lañu samay rakk lañu samay morom lañu wala samay jarbaat lañu ku ma mën a dimbale naal dimbale kon jël demuma ak financement wu kenn demuma xaalisu Idrissa Seck dew ma xaalisu mag Sall dew ma xaalisu kenn man sama xaalis laay demee ndax dama am métier di liggéey damay liggéey fii senegal damay liggéey bitim réew maanaam kon sama alal laa jël di ko delluwaat ci nit ñi lii nii tàmbali la lii du dara man waxoon naa Ndeye Fatou bu ko génnee waxoon naa ko bu ko génnee lii du dara waaye du it dañ leen a wax dañ du dañ leen nii may lii pour ngeen jàppale ñu dama leen wax bis bu nekk képp koo xam ne li ñuy def doy na la ñëwal nga ànd ak ñun bu la doyul demal seeti keneen ñun dañoo nekk nit ñoo xam ne du ñu neexal kenn ci liñ jëm ndax ñun duñu ay jaayal dañoo jàng ba jeexal téere yi bay bind ay téere àdduna bi fu nekk nit soxla ñu fa ci kër àdduna man su ma neexoon ñoom ñi nekk ci nguur gi su ma bëggoon ay milliards jox ma ko moytu leen ñu leen di wax loo xam ne du dëgg ñun dañoo ànd ak yéen àndu ngor la ñuy ànd ak yéen mbootaay bu ñu dem danaan la àndu ngor la ñuy ànd ñun ak yéen bu ñu soxlaa ngeen ñëw fekk suñu su ngeen soxlaa ñëw fekk si leen ku ci am soxla bu tàbbee suñu nopp ñu def ko te suñu alal la du alalu kenn ñu ñoo ko liggéey li ma leen di xamal mooy man moom pexe bu may def jaral na ma ma jaay sama mbubu ndax Macky Sall jóge fi ci zaahir ak ci baatin loolu rek moom ma tax a jóg man moom soxlawuma dara ca àdduna lu dul Macky Sall na fi jóge jox jox keneen ndax mu munul ndax lenn koo xam ne bis bu nekk ku wax nga tëj ko kaso képp koo xam ne am na ku ma déglu keroog mu ne ma yow danga nga def déclaration boo moytu dal lay tëj ma ne ko man kenn du ma tëj man ku ma tëj ma tëj la ku ma tëj dootoo tëjati bay laa wi mi man fi may dem dama koo ñeme man sëñ Bamba moo ma ngepp jox ma Serigne Saliou mbakke mu def lu muy def ci man amuñu kenn ku dul sa Seck fii la juddoo te ku ne xam na ne sa Seck bi mu nekkee fii premier ministre yore liggéey Thiès bii ku ne xam ne li fi rafet moo ko fi def ku ne xam ne sa Seck li fi rafet moo ko fi def waaye buñ ko bàyyi woon buñ ko bàyyi woon kon buñ ko bàyyi woon rek mu baax waaye comme yàqal nañ ko léegi nag bu yilifee lépp ku ne xam ne Idrissa Seck bu fal woon tey jii ku ne xam ne Thiès moom ñëpp ñëppay daw ñëw waxatuma la ak Sénégal waxatuma la ak Thiès ndax ñoom ñii taxaw nii ñëpp Idriss Seck moo leen ëpp xam-xam ñoom ñëpp moo leen ëpp xam-xam kon nag damaa bëgg ñu takku liggéey kenn bañ a dugg ci diggante bi man nag lii tàmbali la bu ngeen ñëwee fee àjjuma ngeen xam ne lii tàmbali la li ma leen xamal mooy groupement yi nga xam ne ñoom lañuy ñu jot a jël seen yi maanaam seen i carte d'identité maanaam groupement yi nga xam ne ñëwoon nañu fekk si moo mooy ñu ne fii ak ñu nekk ñetti groupement yi nekk fii maanaam financement yi leen war a jox xaalis bi nga xam ne moom lañ leen war a lebal xaalis boobu ma nga ca kër ga tege léegi nag bu ci kàttanu yàlla bu ajuma ajuma man maay jël nag man maay organiser man sama wàllu bopp maay organiser damaa bëgg ajuma yéen ñëpp ngeen ñëw teew parcelle ci wetu armeel yi maanaam ñu tëj fa safar yi maanaam joxe paasu Touba yi xam nga. ñun nag moom tey li ñu taxoon a def safar gi mooy sant Serigne Touba mooy li nga xamante ne nii moo ñu tax a jóg waaye nag dafa am loo xamante ne nii dañ leen koo diggoon. te sëñ Bass Bamba Xéwal doon na nit koo xamante ne nii ay waxam du fanaan àll lépp lu mu leen wax dina ko def te dafa jóg uniquement pour jàppale jeunesse bi jàppale leen mooy fal suñu fitir président muy Idrissa Seck en 2019 li ma ciy dolli mooy sëñ Bass Bamba Xéwal dafa ñëwoon fii digg guy sombeel xamal ay mbootaay neleen dinaa leen may seen soxla te seen soxla yooyu mooy ay bool ay barada ay chaise ensuite ay bool yi nga xamante ne nii jigéen ñi dañ koy soxla bu ñu amee xew lu ci mel ni ngénte sëñ Bass Bamba xewu nag li mu waxoon def na ko jëndal na leen ay bool jëndal leen ay barada mais chaise yi dañ koo commandé dafa war a jóge ba dakaar parce que chaise yu orange lay doon couleur sa Seck suñu futur président bu àjjuma incha allah képp koo xamante ne nii mbootaay nga yor àndal ak sa mbootaay ngeen fekk suñu parcelle unité 3 ci wetu cimetière ya lépp loo xamante ne diggoon nañ leen ko te indiwuñu ko tey bu bis boobaa bu soobee yàlla danañ leen ko jox ndax ku leen dig añ bu leen leen ki leen jox añ bu leen diggee reer ngeen war koo gëm loolu la sëñ Bamba Bass xéewal def ma doole ci tamit ne di sant bu baax Cheikh Omar moom mi nga xamante lépp moom la ndax tey jii organisation bi moom la lépp bu ñu jaaxlee duñ gis sëñ Bass déedéet Cheikh Omar la ñuy gis ñu ngi koy sant bu baax di ko remercier merci beaucoup. ku ko ngooyee saa su nekkoon tey kuy tëb leen moo ay eh, dama ko nag jubante daal lépp gën ba sawar ci lool bu ne ma da nga ànd ak gan bi yéen ñëw fekkee ànd naa gan bi mënu ko ak maa jàpp mii conseil def eh, jigéen ñi président Dakar président bi looloo xam looloo gàllankoor daal ñëw na ba tey ñëw na yëpp sant yàlla. dégloo dégloo dégloo. lii nag sant yàlla la ndax waa Kër Tombe ñu gore ngeen. ñu gore ndax jaay nañu fi nit ñi ba taay joxe nañu fi alal ba taay lu ne responsable foofu pour ñu dem na ko di. mais taxul ngeen jëm taxul ngeen daw ngeen jàpp ci fii rek ba yàlla indil sëriñ Bass xéewal Idy sëriñ Bass gisal dégg Idy bu neex ko lool mooy day jàpp ci falu boo waxee waa Dakar waa Dakar ne ko leen lañ lay wax ñaar moo fi nekk ñaar ñooñu ñu jege Idy lañu e dégloo muy man Sidy Kounta Thiès Saxare ñooñu ñaar soo leen jàppee yaa ngi mel ne yaa ngi jàpp nga ci ci digg bi dara lépp looy def ci di dara ko yëg dara ko xam nag da ngay def sàqale yóbbu wala ci keneen defal ci sàqale nga ànd ak boo wax nga liggéey moom seen bët boo ma dama ko daanaka ñoo ma yabal ci yow. nee na dëkk bi am nay nit am nay responsable am nay maire am na lu ne mais yow la ñu tànn pour mu ànd ak yow liggéey ndax kii di réew la wóor yow la confiance boobu ba tey ñu ngi ànd liggéey loolu nag loolu ak yàlla na la tax ñu di xam ne du ko féetee soo gisee yi di tënk ko ñooña tax it jéego bi am na yéen waa Louga Sëmbe nag li ma la ko jiitu bu la jëlee nañu si ngeen bañ di ko njëkk xaar ba yàlla indi waa yoo xam ne kii ci nawet bi benn bi dee tax mu ñëw jël alal boppam di ko ci def. donc naa leen waxal nit ñi jokk dërëm naa leen waxal baat yi jokk dërëm moo jël alalam xool xool li ko doy ci Idrissa Seck. xool candidat yi fi nekk ñu xool idi bari capacité la nga bu def Thiès tey kanamu Thiès xana kanamu Thiès ku fi gëjoon ba taawu bàttam soo liggéey nee na Thiès a ngi doo ko xam kooku idi la tey kooku moo def ñu jaral ko kaso jaral ko ñëpp loolu ñu am ñëpp Thiès ko def bi buñ la xaar yàlla waaw yàlla di ko def ay bët seen bët seen bët jël alalam di ko defal jigéen ñi si la jaa ngi joxe keneen a ngi joxe keneen a ngi joxe mais loolu yëpp sànni ngeen ko ca àll ba yàlla indi leen bët bàyyi bët seen bët seen bët xéewal tey mu jox leen lii leen jox chaise leen jox passe magal leen jox waagal loolu yàllaa ko yaakaar ngeen toog ànd ak si gis ngeen ko loolu amul yàlla nag kuy defar day mel ni ku yàq defar bi daa jot seen xéewal moo war a moo jot heure ba jot na incha allah 2019 day yóbbu pare. amiin amiin. ñoo ba pare ñoo la jeex na ñoo la jigéen seen ñoo la jeex na xale yi seen ñoo la jeex loolu yàlla ko ko dogal. taxaw na man Saliou Sène bu Waala yàlla def dara ci ànda yàlla lépp lépp lu muy def rek am na taw def kon nag sëñ Ba ñu ngi lay sant sëñ Ba yàlla la yàlla fay sëñ Ba di ñëw di ñëw teg yàlla ko ñaan dugal ba ñëpp seen coono jeex ndax ñoo ñaan yàlla su ñu di faloo kenn ba leen xaaral ci loxo kenn ku ne am nga yóbbu sa kër ku ne am foo bëgg rek am dara xale yi bëgg gaal gi donc bëgg gaal gi am lu ñu am xale yi ñu dem ci àll ba donc jigéen ñi di dimbale góor ndax kër yi amatu dara de kër yi jigéen ñee ko yor kër yi jigéen ñee ko yor jigéen ñoo teg seen i ndax moom di teg seen i lu ne pour jël dépense bu góor kër gi ndax góor gi amu ko góor gi leen nii mais jigéen ñi mënul a débrouiller góor mënu ko débrouiller loolu yëpp lu ko ni réer président bu bon président bu mënul dara Sénégal ceeb Sénégal yëpp daal ceeb bi lekk moo taxoon da ngaa añ da nga ndékki da nga reer léegi soo añee doon ndékki doore ndax da ngay débrouiller ba am añ soo débrouiller añ ba soo añee say kër say xale yi fasa lekkal nelaw su subaa nga jëw ci jëmu yi balaa nga am départ wala yooyu deux heures jot nga defar ku na xool taal bi ndax dara sa xool jiit bu bon kon nag yàlla nañu yàlla tegal Macky Sall teg yi Macky Sall teg yi di fa teg te ki da ngay di fa teg yàlla na ko jox xelu lu mu yore réew mi yàlla ko yàlla jàppale yàlla bu mu beew yàlla xam ne réew mi di ko di ko dégg ay nit lañu mu yërëm ne leen dimbale leen li mu wut yi pour déglu ci réew mi jox ko leen yàlla ko yàlla yombal. léegi parce que léegi gërëm la tam. jërëjëf Fatou